jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi ñu uh, fesal li nga xam ne moo di daal boppi uh, xibaar yi ñi nga xam ne daal ñoo di uh, takkader yi nga xam ne ñooy saytu lu aju si li nga xam ne moo di daal digaaloo yi rek daal boodas yi keroog loon di amal nañ benn fanu ndaje boo xam ne dañ doon waxtaanee lu aju si rek wàllu nag daal anam yi nga xam ne moom lañ nag wala gën a amalee kaaraange si li nga xam ne moo di daal digaaloo yi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi University of the Gambia di rek daara ju uh, kawe ji nag daal tàmbali nañ seen nag benn bés bu ay boo xam ne dañ ko nag daal jagleel seen i nag li nga xam ne moo di daal ay liggéeykat betana si li nga xam ne moo di seen xew-xew boobu am na ay nag gan yoo xam ne ñu ngi nag jógeeku si rek ab university wala ab daara ju kawe boo xam ne mu ngi foofu si réewum li nga xam ne moo di daal Spain betana daal am na daal ay nag wecci wante xam-xam ak xalaat boo xam ne dinañ ko amal si rek daal benn fanu li nga xam ne moo di xew-xew bi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi këru liggéeykaay boo xam ne dañoo yëngu si rek wàllum dencam xaalis ñu xamee leen si Yuna Islamic Microfinance am nañ nag daal benn nag daal banqaas bu bees boo xam ne ubbi nañ ko si rek diwaanu li nga xam ne moo di wasu si suufi Central River Region dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yii ak yeneen gannaaw bàkka mi ñu daal di yaatal talaata la fanweeri fan yi si weeru janwaari atum 2024 di atum ñaari junne ñaar fukkay ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar yi ñi nga xam ne daal ñoo di takkader yi nga xam ne ñooy saytu li nga xam ne moo di daal diggaaloo yi di daal boodas yi ñoom daal keroog lu amal nañ nag benn fanu li nga xam ne moo di ab ndaje boo xam ne dañ doon waxtaanee lu aju nag rek wàllu nag daal aar bi nga xam ne moom lañ nag war a gën a aar li nga xam ne moo di daal boodas yi rek wala nag li nga xam ne moo di daal diggaaloo yi li nga xam ne moo di daal seen benn fanu li nga xam ne moo di daal ndaje mi nag keroog lundi ko nag daal di amal ab benn fanu ndaje la boo xam ne daal ñi nga xam ne seen nag loxo laale na si laale na si mbir mi wala takkader yi nga xam ne seen nag loxo laale na si mbir mi Euh, teewe woon nañ li nga xam ne moo ne benn fe benn euh, fanun li nga xam ne moo di ndaje moomu bokk na si banqaas yi takkatar bi ñu xamee si Gambia Immigration Department di Gambia Police Force ak di gambe Revenue Authority ak sax bunti takkader biñ xamee si président service ak yeneen si li nga xam ne moo di ay bunti nag takkader teewee nañ li nga xam ne daal ndaje moom li nga xam moom lañ doon waxtaane rek mooy nag daal si uh, anam yi nga xam moom lañ nag war a gën a lu aju si wàllu kaaraange si li nga xam ne rek daal booda si rek wala li nga xam ne moo di digaaloo yi si li nga xam ne ndaje mi ki ñu si Mac Lynch nga xam moo yore nombal tànk bi ñu xamee li nga xam ne moo ne benn fanu li nga xam ne moo di ndaje mi lu ama am solo la gannaaw bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ fa nag daal dajalee ñoom nag daal seen nag loxo dafa nag laale bu baax a baax si rek daal lu aju si rek wàllu nag daal amal li nga xam ne moo di kaaraange si li nga xam ne moo di booda si war ak li nga xam ne moo di daal digaalo yi beten daal sàkku na si ñi nga xam ne ñoo teew si li nga xam ne moo di ndaje mi ku si nekk nag nga joxe sa xelaat pour rek daal lépp loo xam ne tënk nañ ko mu doon loo xam ne daal lu ñuy nag daal jëmmal la lu ñuy nag daal jëfandikoo la pour rek daal mun a nag ñoŋal lu aju si wàllu li nga xam ne moo di kaaraange si li nga xam ne moo di daal boora si rek daal di li nga xam ne moo di daal digaalooy si li nga xam ne moo di coppite bi nga xam ne réewu Gambie mu amal si rek daal wàllu doxalinu li nga xam ne moo di karange ñu xamee di Gambie li nga xam ne moo a baax li nga xam ne moo di wàllu karange li nga xam ne moo di daal coppite yi ba tax daal xam ne nañ ne li ndaje mi nga xam ne moo di daal benn ay takkader nag daal yu jógee rek banxaas nag yu dafa nag daal gën a li nga xam ne moom la ñu daal di tënk si li nga xam ne moo daal waxtaan woowu noonu Abraham Mendy yore na bal tànk mi ñu si deputy permanent secretary ministry of interior moom nag daal dina wane uh, façon ñu nag daal ndaje yi nag daal daanaka amaloon nañ ko si rek weeru septembre atum 2023 rek daal di ko gën a ñongal ba tax daal wax na uh, si rek atum uh, si weeru novembre tamit ñetti fan si atum 2023 tamit amal nañ si ak li nga xam ne moo di daal nag ndaje bu mel ni te nag wax na ne li nga xam ne moo di daal ndaje nag daal yu mel ni te nag tax nag daal ñu gën a ñoŋal lu aju nag si wàllu li nga xam ne moo di amal kaaraange si li nga xam ne moo di boodas yi wala daal li nga xam ne moo di daal digaaloo yi bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar University of the Gambia di rek daara nag ju kawe ji ñoom daal amal nañ nag daal benn bés bu ay boo xam ne dañ ko nag jagleel seen staff yi maanaam seen nag li nga xam ne moo di daal liggéeykat yi bétana si li nga xam ne moo di benn li nga xam ne moo di bés bu ay boobu nga xam ne moom lañ jagleel seen ay liggéeykat ak benn bés bu ay na ay gan yoo xam ne tamit ñëw si leen si li nga xam ne moo di daal xew seen xew ay gan yoo xam ne ñu ngi nag jógee ko si rek daal ab university wala ab daara ju boo xam ne mu ngi foofu si réewum li nga xam ne moo di daal Pire ñu xamee ko si Jeen University te nag daal li nga xam ne moo di daal ñooñu nga xam ne nag ñoo ñëw fekk si ji uh, daara ji kowe ci nga xamee si rek daal University of the Gambia seen nag daal ñëw dafa tax nag daal ñi nga xam ne ñoo daal uh, taalibe yi nga xam ne ñoo nag nekk si rek ñaari daara yu yi nag daal ñu mën a ne daal xam-xam ak li nga xam ne moo daal ay nag daal xalaat ba tax nag ki nga xamee si professeur Herbert Robinson nga xam ne moom moo yore nombal Gambia moom nag daal dina waree li nga xam ne moo di ñaari daara daara yu kawe yi nag daal seen nag daal lëkkaloo bi nag daal lëkkaloo bu am solo la gannaaw bi nga xamee ne lu aju nag si rek wàllu nag daal wecce wante xalaat ak tamit lu aju si rek wàllu wecce wante li nga xam ne moo di ab gëstu lii nag daal dina doon loo xam ne luy dox si seen i nag daal diggante la ba tey daal wax na nag daal ñi nga xam ne ñooy nag teewee li nga xam ne moo di benn bésu ay li nga xam ne moo di xew-xew bi nag daal war na ñëw profité wala daal war na ñëw porox ndollu daal yi nag daal njëriñoo si li nga xam ne moo di daal benn bésu ayu li nga xam ne moo di daal ndaje mi mu nag ak sant gërëm bu baax a baax daara ju kowee ci ñu xamee si Jeen Université ju nekk foofu si réew mi nga xam ne University of the Gambia José Ignacio Jiménez xam ne moom moo yore nombal tànkam bi ñu si vice rector si rek daara ju kowee si University of Jeen moom nag daal dina war a sel nag ñëw si biir li xam ne moo daal réew mi ñëw daal bu am solo la bi nga xam am na lu toll si rek ñaar fukk si li nga xam ne moo ay students mu daal ay nag daal taalibe yoo xam ne fukka yi nag daal euh, daanaka euh, dina nag daal am nag ab teewaay boo xam ne dina ñu xamee si Jeen daal Jeen University daal dina mo euh, daal jamono ji am na lu toll si rek daal ñaar fukka wala lu a ñaar fukka si li nga xam ne moo daal ay nag daal gan yoo xam ne jógee ko jagleel si rek daal daara jikkoy ji nga xam ne moo daal di daal ay kaddu tamit na wax na ne li nag daal ab njëriñ la boo xam ne ñaari yi daal di njëriñoo Violeta Insa Sandoval nga xam ne moo toogal réewum Spain si réewum li nga xam ne moo daal Gambia waaye nag makkaana daal dina wale la jagleel am solo la boo xam ne dinañ ci nag a wéccoo nga xam ne moo di xew-xew boobu ne nag lii dina tax nag daal ñaari nag daal university wala daar daara ji kaw daal a a di lëkkaloo daal daal nga xam ne moo di xam ne moom li nga xam daal digmal mu ngi nag daal di xamal ñi nga xam ne daal nekk si daal daara ji xam si daal université of the Gambia ak daara ji ko way ji nga xam ne daal yéen yéen university nekk foofu si réewum li daal Spain war na ñoo xam ne lëkkaloo bi nga xam si rek daal lëkkaloo bu am solo la boo xam ne foo ko nata si daal dina ko weesu bu ñu sukkandikoo rek si li nga xam ne li nga xam ne moo di daara ji kowee ji ñu xamee si rek daal euh, Ministry of Higher Education wala tax yore ab ab nombal tànk si banxas bi nga xam ne ñoom nag daal lañ dénkañ njàng nga nag mu kawe mi fii si biir li nga xam ne moo di réew li nga xam ne moo di Gambia ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar li xam ne moo di daal këru liggéeyukaay boo xam ne dañuy ñu xamee leen si rek Yuna Islamic Microfinance nga xam ne daal lool si biir li nga xam ne moo daal réew mi am na xam ne ubbi nañ ko si diwaanu wasu bi nag mooy fukk ak ñaareelu li nga xam ne moo di banqaas boo xam ne am nañ ko si biir li xam ne moo daal réew mi ba tey na daal ubbi nañ nag ab banqaas bu ees foofu si diwaanu li nga xam ne moo di wasu si rek ñaani district Central River Region suñ sukkandekoo si ñi nga xam ne ne ñoo dëkkee si diwaanu li nga xam ne moo di daal wasu xam ne nañ ne ubbi bi nga xam daal nag daal euh, na ubbi na ko ab banqaas daal dina leen yombalal ñoom ñi nga xam ne daal ñooy nag bugg a denc seen xaalis yi li xam ne moo di euh, béréb daal yu mel noonu yangi ko ba Mambouré nga xam ne moom a yore nobal tànka bi ñu xamee si managing director si Yuna Islamic Microfinance moom nag daal dina wane li nga xam ne nag moo di dencam li nga xam ne moo xaalis nag daal la gannaaw bi nga xam ne daal wax na ne euh, tax nag nit ki euh, xaalis nag daal du la leer te nag daal euh, dina tax tamit euh, duñ la sàcca dina tax mi tamit nga nag daal moytandiku nag sax xaalis di nag lakk ak yeneen si li nga xam ne moo di njëriñ yoo xam ne daal dencam xaalis nag daal am na ko surtout nag daal di ko nag dénk nag daal banqaas bu si mel ni li nga xam ne moo di daal Yuna Islamic Microfinance daal di rawone seen banqaas bi tamit am na tamit yeneen si li nga xam ne moo di ay mbir nag daal yoo xam ne amal nañ ko bokk na si nag daal fexe amal li nga xam ne moo di daal ay nag daal xëy yoo xam ne daal eh, dina am amal nañ ko di nag daal dinaa jox ay nit li xam ne moo di ay liggéey xam ne tamit lu aju si rek wàllu da joxe li nga moo di bor loolu tamit si lu ñoo yëngu la bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom te na ne ñoom nag daal lépp loo xam ne ñu ngi koy li nga xam ne moo di daal sariya bu ñu sukkandiku si ay kàddoom moom Mr Mambouré nag daal mu nag daal di continuer di nag daal di wax nag daal li nga xam ne moo aju si wàllu li nga xam ne moo di daal dencam li nga xam ne moo di daal xaalis lu ama am solo te nag daal mu ngi sàkku si ñi nga xam ne ñoo di askanu li nga xam ne moo daal profité wala porox ndolu jëfandikoo seen banqaas bu bees boobu nga xam ne moom lañ leen ubbil foofu si dimaalu li nga xam ne moo daal wasu Ibrahima bi tey yeneen ndombal tànk bi ñu xamee si managing director Yuna Insurance moom nag daal dina wane daal daanaka nag daal ñoo am na yeneen yoo xam ne dinañ koy faral di def bokk na si nag daal bu fekkee ne daal euh, bugg nga nag daal ñu insol la xam ne moo di daal sa kër euh, insol la xam ne moo di daal sa ab business wala daal sa ay jumtuwaay yoo xam ne am nga ko sa dëkkuwaay euh, wax ne sax daal ñu ngee daal lal ay pexe pour rek daal fexe tamit ñi nga xam ne ñooy yëngu si rek wàllu mbéy mun lañ leen buñ buggee tamit mun lañ leen a li nga xam ne moo di daal nag daal ay tool ne nag wax na ne lii tamit lu ñu nag daal bugg amal la surtout tamit ñi nga xam ne ñooy nag daal faral di nag daal am gàllankoor bu fekkee daal eh, nag daal eh, nawet gi ñëw na te nag daal ndox mi nag daal bëri eh, muy nag daal indi li nga xam ne moo di yenn si li nga xam ne moo di ay jee Mamadou Samb nga xam ne mooy CEO bu Kontawur Area Council mën na daal dina wane daal daal a xam ne ñoo di rek daal waa li daal di wane ñoom nag dinañ nag daal council bi dinañ jàppalante ak bu baax a ak ñi xam ne ñoo di yuu na ko defee nag daal lépp loo xam ne seen bugg a buggal la nag daal fexe nag daal ñu euh, daal di leen ko nag daal amalal euh, si rek ndaje moomu tamit am na ñeneen ñoo xam ne yëkkati nañ fa kàddu bokk na si Mouhamadou Manjang chairman bu board of directors Yuna Islamic Microfinance Mamadou Baro managing director bu Yuna Forex Exchange Bureau ak tamit yeneen si li nga xam ne moo di daal ay nit yoo xam ne wax nañ fa nag daal wax njëriñu li nga xam ne moo di daal ndencam li nga xam ne moo daal xaalis ak lëkkaloo bi nga xam ne euh, njëriñ na lëkkaloo ak Yuna nag daal njëriñ bi nga xam ne tamit am na ko loolu yi nag xam ne ñoom yuna ñoo ko ubbi foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal wasu si suufi Central River Region si rek daal xibaar nag daal gu mujj gi ñi nga xam ne daal ñoo di askan wi nga xam ne ñoo bokk si li moo di mbootaay bi nga xam ne moom lañ duppee Maka Bala Mane Development Association ñoom daal ñoo doon amal li nga xam ne moo di daal ab nag daal xew ne dañ doon nag li nga xam ne moo di daal askan wi lu aju nag si rek wàllu loolu ñu xamee si bush fire maanaam nag àll goo xam ne dinay faral di nag daal tàkka loolu nag daal lañ doon nag daal waxtaane ak li nga xam ne moo di askan wi di leen si yee ba tamit am na tamit yenn si li nga xam ne moo daal ay nag daal yoo xam ne yoo xam ne def nañ ko euh, pour rek daal di aar li nga xam ne moo di daal seen àll goo àll goo xam ne euh, mu daal bak Makka Bala Maane xam ne daal ab nag dëkk la joo xam ne daal juróom-benn kilomètre moo nag dox si seen i diggante at mu nekk nag daal euh, dina li dina nag daal yee askan lu aju nag si rek wàllu li nga xam ne moo di bushfire maanaam takka-takka gi nga xam ne dina ñaaral dinay faral di am li nga xam ne moo di daal àll yi Abdoulaye Cissé nga xam ne moom mooy si li nga xam ne moo Saoudite ak daal mbootaay bi nag daal li waral nag daal ñuy def moo daal pour a gis ne bu fekkee ne daal noor gi ñëw na xam ne ñoo di askan yi a xam ne moo di si rek dëkk yi nga xam xam ne moo di tàkka tàkka yi xam ne mu ngi am si àll sénégalais yi nag daal ñuy fexe di ko nag muy tandiku nag daal bu baax a baax Omar Mané nga xam ne moom mooy alkaali wala borom dëkk bu rek daal Maka Bala Mané moom nag daal dina war daal daanaka yoo xam dinañ am si seen ay àll seen ay garab nag daal di nag lakka mu nag lii nag laal lu leen nag daal jaaxal la bett nag na loolu ma waral ñoom ñi dëkk si dëkk boobu di rek Maka Bala Mané daal ñu nag daal takka seen nag ndiga pour daal fexe nag daal teral ay nag daal fexe yoo xam ne dina tax ñu mën a fagaru bu baax baax a baax si rek daal takk-takk yi nga xam ne dinañ am si seen li nga xam ne moo di àll gi Fatou Diallo nga xam ne moom nag daal ab soxna la soo xam ne dina faral di nag daal uh, nag daal loolu nag saa yu seen ay ndaw dinañuy faral di góorgóorlu di nag daal daal di jëmbataat yeneen li nga xam ne moo ay garab mu ne nag daal ndaw ñi nag sonna nañ si bu baax a baax wax na daal jot na daal ñu jël seen ay matuwaay nag daal fexe li nga xam ne daal mooy sabab ab matuwaay nag daal bu mat eh, sekk bu ñu sukkandiku si li nga xam ne eh, moo di daal ay na daal eh, kàddoom Alpha Lo nga xam ne moo fa teewaloon forestry department moom nag war daal mu ngi nag sàkku si li nga xam ne moo di daal a jël seen ak ay matuwaay fexe di nag daal mooy tëndeku bu baax ba li xam ne moo di seen àll yi di nag daal di xamal li nga xam ne moo di askan bu fekkee tamit gis nañ ay nit yoo xam ne daal ñu ngi nag daal def ay jëf yoo xam ne defut maanaam nag di lakkal li nga xam ne moo di yenn si li xam ne moo di ay daal àll nañ daal boole si li xam ne moo di kilifa yi su ko defee kilifa yi mun a jël li xam ne moo di seen ab matuwaay xam ne moo di Makka Bala Maade seen bi nag ñu ko sosoon si atum 2009 ab la boo xam ne daanaka sóob tañ seen loxo si rek wàllu yu bëree bëri bokk na si wàllu li nga xam ne moo di mbéy wàllu nag daal wérgu yarami askani wàllu njàng wàllu li nga xam ne moo di dooleel li nga xam ne moo di soxna yi ak yeneen si ay mbir yoo xam ne daal depuis booba léegi ñu ngi see sóob li nga xam ne moo di daal seen nag daal loxo bokk na si tamit dinañuy faral daal di amal loolu ñu xamee si blood donation maanaam mayam li nga xam ne moo di daal deret bokk na si tamit di nag jëmbat li nga xam ne moo di ay garab te bokk na si tamit di nag daal eh, jàppale askan wi seen wàllu li nga xam ne moo di daal ab nag daal wérgu yaram bi nga xamee ne eh, tàmbali nañ seen mbootaay bi depuis atum 2009 ba léegi